c'est la référence. kaddu gi euh, di àddoo fii ci studio Alioune euh, Momar Lo taaxum kaw ma ñu euh, duppe Cheikh Imam Assane Cissé mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci xibaar yi bu ngeen taaxirloo rek ma jukki leen li ci gën a fës li gën a fës ci xibaar yi nag bokk na ca ne naam sax lii di taw bi moom daal di nay tàmbali ci jàmm waaye nag terewul njàqa rek tiitaange daal di juddu ci kanam béykat yi nga xamee ne si ña ngay jànkonte ki jafe-jafe Ibrahima Thiam ne àll bi joxuñu leen seen ak gëdd. ba sax ba nga xamee ni sii ña ngay tabb nag li di député yi dañu leen ca fàtte lu ni mel dañ ca dikk yaatal ko ci euh, biir euh, xibaar yi ndax seeni ay kilifa ñoo leen di euh, xoñoñol wa ilaa itam kër gi di poste moo nekk ci guddi gu bët setagul lu ci mënti doon nag ñi di ndawal buur yaa nga xamee ne si ñoo nekkee ca département bu Nioro ñoom nag ña ngay yuuxu wàllu nee nañu sax seen boolu muñu kaay dafa fees jëm rek ci kër gi di poste ak jafe-jafe leen di jural ci wàllum payoor gi lu ni mel dañ ca dégg Cheikh Babacar Dieng association union régionale bi takkee boutiquier yi ci Kaolack ñoom i tamit nag daal dinañuy weddi rek ay tuuma andi ay leeral jëmee nag ci wàllu njëg yu cher yi nga xamee ne ñii di waay jëfandiku yi ña nga leen cay joxoñ baaraamab tuuma Ardo Njim ma leen jiite moom itam daañu ko dégg ci ni noi bi yaay bu li lépp mbokk yi daañ ca teg xabaaru bitim réew ak Alioune Badara Diop tàggat yaram gi ak Serigne Moussa Kane li ci yéene kaay yeeg El Hadji Oumar Cissé mooy jeexal yi Codou kenn me ci xarale gi Frim lay doon. Le journal Ngoné Ndiaye ci kàddu gi ak na ma leen ko euh, junjee euh, ñii di euh, fonctionnaire de l'État ya nekkee ca département bu Nioro ñoom nag ñoo doon yëglu rek jëm ci jafe-jafe bi dox ci seen ak digganteeg kër gii di post nee nañu nag jamono jile seen boolu yi dafa fees yaatal gi ak Cheikh Babacar Dieng. ñoom ndaw yu buur yi nga xam ne ay fonctionnaire lañ te di liggéeyee ci département bu Nioro jafe-jafe dëgg la ñu am bu weer bi dee ñu jot seen xaalis lii nag ñu ne kenn tegu lu kër gii ñu dippee poste lu leen naqari lool Jean Joseph Ndéki jàngalekat la fa ñu yeggee xibaar yi. parce que mun ñu concevoir état bi viré viré suñu salaire ci ñoom ñoom ñu téye xaalis bi mun ñu ko parce que moom li gënoon a am maanaam mooy chaque fin du mois dañu war def appel de fonds puisque amuñu xaalis ñu def appel de fonds au niveau central que ñoom ñu renflouer seen caisse en attendant que balaa fin du mois di jot comme ça ñu ñun mun a jot suñu xaalis comme central niveau central renfouler seen caisse ñun ñu mën a jot suñu xaalis mais loolu amut. ñoom fonctionnaire yi nga xam ne jàngalekat yi ci ëpp te di faye ko ci postu ñu ne fi mu nekk seen booloo muñ fees na yàgg na ñoom mu ñor postu ci xat-xat yum leen di dugal ngir ñu jot seen xaalis waaye fi nekk nag yëf yi li daal neexul dara. c'est un cri de ñu depuis at ngi nii ñu ngi koy supporter ñu ngi leen koy muñal mënul continuer parce que ñun tamit dañu am ay responsabilité ñu am ay charge vote ñun ñaanuñu yelwaanuñu suñu xaalis la dañ ko war a fay parce que poste moo engagé woon pour ñu suñu salaire donc situation bi fii la toll lii la demee te bu continuer mu ngi continuer di muy gën xeeñ lu bon bon bon di dem chaque mois day gën a metti ñoom sax dem nañ ba ci biir waxtaan wi mbir yi ay tooñ la ñu ko duppee jóge ko ci kilifaay poste jëm ci fonctionnaire yi te dañoo jàpp ne lu ñu war a moytu la. léegi nag poste amaluñu ak amaluñu ak bu bëree bëree bëri bugguñu woon a génn def wax mais nag lu ëpp nag dafay tuuru mais ku nekk na bañ di tooñ moromam nañ bañ di tooñante tooñ baaxut. ginnaaw nag ay at a ngi nii weer wu ñëw di gën a métti wa paase bind nañu sottiwut ñu mujjee dox sax dem gis recevoir post bi nekk ci département bu ñooro waaye daa yokk joote ji. dem nañu rencontré si suba si recevoir poste bu ñooro mu xamal ñu ne ñaari condition ñoo fi nekk amuñu réseau depuis presque weesu na une semaine amuñu réseau pour mën a am virement yi deuxième chose mooy amul xaalis bu ñu mën a fay bureau bu poste bi ci Nioro waaye day sone rek. Cheikh Babacar Dieng xanaa rek di ca yokk ne ubbil nañu ko suñu ay buntu ngir rek saa bu bëggee addu jëmale ko ca euh, loolee ñu desaale ba tey ak ndawal buur yooyee la tax nag dëgg-dëgg ñu yaay euh, ñaxtu mbir maak fa mu leen toll ak itam la ñuy xaar ci euh, kilifa yi lii lépp nag moom Jean Joseph Ndekki àdduna ceek Cheikh Babacar Dieng. situation bi mooy lii ñun ñi nga xam ne ñooy percevoir suñu salaire agent de l' état de l' état domicilié suñu salaire force ñun ñoo am problème bu mag depuis presque un an ñuy am ay difficultés pour percevoir suñu salaire correctement mais li gën a garaaw mooy weer yi passé maanaam nii nii nii ñoom dañaa demoon ba finalement ñu amal ñu ne amuñu xaalis bi ñuy fay ñu viré suñu salaire ci ordre de virement ñu yóbbu ñu RIA ñoo ñoo supporter charge yooyu noonu or ñoom dagg nañ déjà li ñu war a dagg ci suñu salaire RIA ñoo dagaat li ñu war a dagg pour ñu ñu percevoir suñu sala donc nga gis na ne ñaari dagg la ñuy def ci suñu yi ci weer bi passé weer bi nag moo gën a amul sax connexion pour mun a xam ñaata la ñu viré ku nekk ci ñun ci salaire am même bu dee ñun bëgg nañu jot suñu salaire ñu viréel ñu ko ci RIA ñu si defaat comme li ñu defoon weer bi passé loolu amut lii mooy suñu situation ñun yu ñu xam-xam la ñun ñun nekkuñu ñi nga xam ne ay perturbateurs lañu ñun ay responsable lañu ay responsable lañu au même titre que tous ces responsables qui sont au niveau central mais nag li nga xam ne yaa ko moom boo ko revendiqué wul du gaaw a sotti ñun dañaa bëgg weer bu nekk ñu fay suñu salaire correctement bu ñu ko defee ñun duñu génn poste parce que na li nga xam ne mooy tax nañu génn poste mais nag su fekkee ne mënuñu fay suñu salaire mënuñu def appel de fonds à chaque fin du mois pour ñun ñu jot suñu xaalis mais nañuy libérer ñu ñu dem ci yeneen structures yi malheureusement bu ñu defee demande résiliation ñoom ñu bloqué ko duñ ko signé donc ñu ñuy tooñ ñu ngi ñuy tooñ ñu bëgg na ñëpp yéeg ko xam naa ni may waxee nii ki ma xam xama na nañ man meluma nii mais nag su fekkee ne da ngay wax li nga xam ne moom sa droit la da ko war a wax ñëpp xam ko ñëpp yëg ko ki nga xam ne moom ñoo ko war a ñu lijjanti ko loolu sotti bi ni la continuer mooy situation bu gën simple. ñu daal dem rek xooli ñeneen ñoo xamee ne si itam am nañu lu leen euh, métier lool maa ngi leen ko doon junj muy naka kuréel gi takkee euh, boutique yi ci région bu Kaolack bi yëpp ñoom nag daal nañuy weddi rek tuuma yi ñuy ngàll ca seen ak ndodd naan ñoo yokk li nga xamee ne si moo di cheraayu euh, dund gi ak wàllu njëg gi gi Ardo Njim ma leen jiite tontu ci ne dëgg-dëgg itam lu leen ca waay wax rek daf leen di tooñ ay kàddoom noa bi ay moo ko taataan. association bi dañoo toogoon benn jamono fekk ñun bitikee bëri nañ ci kaw lax mais ànd ñu déggoo wu ñu et puis nekkuñu benn ñu am ci 17 sections 17 section yi am na quartier yu bëri yoo xam ni Medina Mbaba ak Kanda Coopak ak Saam Ngaan Gaawaan ak Ngaan Sayer Ngaan Alassane ak Xaaxun dañuy simale ay quartier quoi boole comme defee Fass Ridwaan Fass Kandé Garde Sing Sing moom la ñu boole lii yokk toujours crise la crise souvent ñu daal di yëkk na ma mën am xaalis bi dafa yéeg bu xaalis bi yéegee la nga xam ne kii dem bitim réew di jënd la lam doon jënd il faut mu yokk ko donc loolu mu yokk muy tegganaay bu dikkee daf ko ci yokk beneen bi muy Covid bi bi mu fi ñëwee parce que ci la wulee ñaay bi mu ñëwee nga xam ne dem dikk bi yombatul li nga xam ne ñi dem bitim réew dañ ko limité biir réew mi aussi dem bi ak dikk bi yombatul activité yu bëri dañoo tàggatee mi dañoo taxaw ci la affaire bi commencé mënta ànd ak niveau régional parce que problème de transport distancement dafay poser prix yoo xam ne gouvernement bi dañ ko imposer woon ne boutique yi grossiste yi lii la ñuy jënd lii la ñuy jaayee boutique yi lii la ñuy jënd lii la ñuy jaayee mais fekk grossiste yooyu loolu ñuy wax ne la ñuy jënde ñoom mënuñu koo amee loolu askan bi li ñu tuumal li ñu wax les responsabilités sont partagées benn état bi moo deful ni war a def bàyyi askan bi kenn ku ne na dem nu la neexee balaa ngay dugg ci ay boutique naan da ngay contrôler ay boutique demal fiy jëlee d'abord nga contrôler ñooñu ba pare teg leen ci yoon ba pare boo leen tegee ci yoon nga mun a wàcc contrôler loolu nag moo jaaxal askan bi yëpp fi mu ne nii. Ardo euh, Jim su ko defee itam ñu daal di àddu rek jëmale ko ci euh, leneen lii di wàllu euh, mbéy mi nag fii ci diwaanu Saloum bi daanaka nag jamono ji dafay jànkuwante ki jafe-jafe mbir mi itam mu mel ni ki rek foo laal day métti lu ni mel nag koo jàngat mooy jiital syndicat bi takkee sàmmkat yeeg béykat yi ci diwaanu Kaolack bi Ibrahima Thiam mi ngi ci jokko bi ci téléphone ak Nouab Yaye dañuy wax ne nawet bi dugg nañ ci bisimilah ñeneen ci génn ak alhamdulilah rabbil alamina waaye nawet bi ci boppam jiwu dafa jafe tool dafa jafe engrais dafa jafe matériel dafa jafe te loolu yépp ay jafe-jafe la ci baykat yi am réew buy dox dafa am ci norme yu muy tege kon dañoo soxla jiwu wi di ñëw ci heure bi ñu ko soxla te placé engrais bi di ñëw ci heure bi ñu ko soxla mu placé ndax tey gàncax gi ñuy wax muy mboq mi mboolem ko jiwoon mboq bu cher boobu muy LG muy panal bi mu nekk eh, indien bi ñooñu ñëpp am nañ ay catastrophe yoo xamante dugg na ci ba yooyu dañu ñoo dee ñu dellu jënd at jiw wala ñu bilaat jiw léegi na nga jënd jiwu cher jënd engrais ñu dem ba ci egg ci waxtu récolte nga koy jaay période dara loolu lañ mën ta dund mënuñ koy dégg kon buñ ci tolloo dafa am loo xamante ne ci biir baykat yi ñoo war a xam fan lañ war a jaar kon baykat yi war nañu war nañu mën a organiser wu seet ni ñuy liggéeyee tey mboq yi amoon na attaque muy ay sax yoo xam ne ñoo ci dugg xëy na bi ñu yàlla dimbalee waxoon nañ ko DPV ba mu waroon a ñëw pompe si ko yàlla def mu taw tawati sax yooyu wàññeeku mais ndikoon dana doon loo xamante ne récolte du am tey na engrais bu cher bii dafay indi ab xiif ci réew réew lu mooy suuf moom gàncax gi lay dimbale gàncax googu muy dimbale suuf si tey amul lenn lu ko mën a dimbale nga mën ci am lu mooy loolu kon buñ tolloo foofu dafa am problème euh, beneen euh, problème yi itam muy euh, jafe-jafe boo xamee ne si dut na ca baaraam nag muy rek la leen fàtte desal leen ginnaaw ñoom waa àll bi àll bi nag bu ñu ko waxee rek xel daj wàllum càmm geeg wàllum mbay mi ci wàllum tabbeefu député yi mu doon nag mbir moo xamee ne si daal dina koy ñaawlu ma Thiam ne waroon nañoo am député bu leen di kaasal seen yi ay doléance ay kàddoom béccay ak noa bi yaay gannaaw bu loolu wéyee ñu dikk ci li nga xam ne tey mooy élection locale yi nga xam ne tey ci lañ jóg ba muy président yi muy suñ njiitum réew tànnul benn baykat boo xamante ne moo ko représenté pour mu dem assemblée muy bépp opposition amul kenn ci ñoom koo xam ne tànn nga baykat ndax dañoo yi boo xeetee seetee président tey li bu nekkee dinaa majorité ci baykat yi la ko ñu joxoon leen seen gëdd ñi muy doxee du ko doxee kon baykat yooyu bu nekkee nit ñi dañuy campagne di dikk ci seen dëkk yi di leen tànqal ak musique ñooñ ci seen bopp buñ dikkee duñ wax lenn ci liñ soxla ñoom buñ jógee déeb leen ci ay oto di leen jox ay mille francs nit ñi ñoo amul fulla ci seen bopp amuñ fayda seen bopp nañ am fulla am fayda war a takku te fiñ toll nii assemblée bi kenn waru ñoo fenoon a war a mën a nekkal ñun dañoo war a tànn député bu nekk suñ biir ñu tànn ko mu dem di ñu waxal assemblée mais ñoom niñ jàngee nasaraan am seen capacité am seen diplôme kon bu loolu amee ñu tànn ñoo xamante ne heure bu nekk rek ñi ñu tànn rek ci seen biir lay doon du doon mukk ci biir baykat yi dama ne ñun baykat yooyu sàmm ak sàmm si tey amul kenn ku dikk wax ci élevage amul wax ci wàllu bétail ku dikk ci wax ci ku dikk wax ci ay race yu ñu war indil kon ñoom ci seen bopp seen bopp lañ nekkal nekk lu ñu ñun ñun ci suñu bopp na ñoo war a xam suñu bopp gis nga ku mënul baxul lu yàqu yow ku mënta defoo luñ ne yow a yow a kon réew mi kenn kum ci mën doon rek ak ku ko mën di yor wax ne na leer ku nekk ne ensemble lu waaye fa nekk kon kenn ku ci nekk bu ëllëgee boo taxawee ensemble loi yañ fay woote nañ ko xalaat te xam ne président bi dafa fekk ay loi te buy dem dafa bàyyi ku mën a doon a doon nañ bàyyi xel askan wi bàyyi xel peuple bi bàyyi xel baykat yi bàyyi xel sàmm si ndax nag mënuñu dem mukk sans monde rural Ibrahima moo xam kaw gi la wa ilaa itam dëkku taax yi la jàppal ne nag kenn mënta dem rek bàyyi moromam bu ñu sukkandikoo ci gëstu buy wax ne benn alam rek képp dong moom la ñu am mu jaadu tey daal di koy waxtaanee eh, ci rek nag nees mën a def ba eh, sàmm ko lu ni mel nag tax na rek ñu daal di tànn eh, ponk bu ni mel ngir waxtaanee ko nag ci bés bi ñu jagleel wàllum aalam gi te it ñu koy màggal ci àddina bi daj wax ngel képp loolee sax jàppale nañu ñu ngi ko nar a amal juróomi fan ci weer ak août Mouhamed Habib kebe moom mooy njiital club changement climatique bu Nioro ma nga ko doon frim fànce ci micro noa bi ay journée de l'environnement dañ koy célébrer ci àdduna yëpp at jot nag dafa am retenir nit ñi di ciy xalaat di ci wax ren thème bi ñu retenir mooy une seule mooy benn aalam la nit am du ñaar du ñett te fii rek la nit mën a dund loolu nag dafa am solo solo boo xam ne bu ñu ko faram fàccee lim ñuy may rek ñu xalaat mooy comme que benn suuf rek la ñu am ñun ñëpp ñu bokk ko ku nekk rek dafa war a jóg jëf ngir suuf soosu dund fi yomb dund fi mën a nekk dund bu baax dund bu neex li ñu gis nag ñëpp saytu ko te saytu boobu ñëpp la war amul kenn foog neex sama jëf ji tuuti na trop pour mën a wàññi li ñuy wax les effets du changement climatique alam bi nu muy foo mën a nekk rek war nga jëf pour que suuf si yàlla jox ñu suuf si ñuy dund ñu continuer mën fi dund ñun mais ñeneen aussi ñu ñëwagul mën fi dund loolu nag kenn warul xeeb penn jëf nit ñi nag ci alam bi yëpp dañu war a xam ne ku nekk da nga war a def sa warugar waroo toog naan sama jëf ji dina néew trop pour mu mën a am impact mais nga def li nga xam ne moom moo la war yaa ngi ci kaw suuf da nga war a préserver suuf bi action boo mënti def lu jëm ci participation donc ñun loolu la ñu wax club changement climatique bu Nioro loolu la wax plateforme nationale des jeunes sur les changements climatiques loolu la wax ñu ngi sensibiliser ndaw ñi fu ñu munti nekk ci communes yi pour que ñu def des actions yoo xam ne dina nekk en faveur du du climat moo xam jëmbat garab moo xam assainissement moo xam beneen action boo xam ne ci barab bi ñu nekk soxla nañu ko fa pour que ñoom ñu def seen participation ci journée wàllu prévention ak lii di euh, nawet bi nag kër gii di euh, Senelec moom nag day faral di am rek njàqare lool euh, ci wàllu nekkiinu askan week li nga xamee ni si moo di installation yi ba tax na itam jamono june ñu cey ñaaxanteeg électricien yi ak askan woowee lamin Diop di ab liggéeykat ca Senelec dikkaat na ci matukaay yeeg lii di fàggandiku gi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. waaye jamonoy nawet installation bu baaxee rek fexe ba installation bu baax installation bu baax mooy lan mooy mesure loolu mooy sensibilisation bu ñu nekk di def ni ak électriciens yi xamal leen ni y a un minimum loo xam ne boo ko defee si installation bi fuite courant moom mooy mën a rey nit parce que boo jàppee si weñ wala dara lu am courant moo lay rey léegi nag pour loolu bañ a am dañuy fexe ba fuite courant fu mu mën am rek installation bu coupé bu installation bu coupé on est obligé bi dina obligé wala borom kër gi dina obligé woo électricien ne ko kon dina dem gis am na pour fil bu romboon laal dara wala laal fii muy tooy loolu mooy indi fuite mu éliminer ko waaw loolu mooy solution beneen solution bi mooy juste vraiment gën a sensibiliser population bi si fiir yu koy wax nawet bu jotee bu ngeen gisee fiir bu dagg bu leen ko laal parce que boo ko laalee suuf si tooy bu dee am na courant mën na jaar si yow te bu jaaree si yow bu yàggee da rey donc euh, nit ñi loolu lañ leen gën a wax si nawet lépp luy fiil bu daggee nekk suuf bu leen ko laal woo leen Senelec mu ñëw bu dee si biir kër lu ngeen gis fiil bu traîné wool sa électricien mu ñëw defar différentiel wala interrupteur boo xam ni il nga def ko si installation boo ko defee luy courant de fuite bu la mën a indil jafe-jafe da koy éliminer. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM. 90 point 1. di euh, wéy euh, ba tey rek di fi taataane ay xibaar yu euh, wér wàllu politique bi nag ca la ñuy rek daal di tabbi gannaaw nag élection législative yi ñu génn kii di Ousmane Noël Dieng njiital MJK moom nag ma nga doon amal rek ab jànnaloo ko presse bi ngir naka daal di càmbar élection yi waaye itam daal di jàngat résultat yi résultat nëgëndiku yooyee ak na mu ko gisee la muy digal njiitu réew mi waaye itam nag càkkute fi àdduna ci ci teewaay taxawaayu Cheikh Tidiane Diagne. Benno Bokk Yaakaar coalition bu njiitu réew mi di Macky Sall moo gagné ci département bu Kaolack waaye nag bu ñu ñëwee ci biir commune bi dañu ko fay làpp làpp yu métti lu ñu mel nag ñi nga xamante ne ñoo farek président bu coalition Benno Bokk Yaakaar jàngat nañu ko Ousmane Noël Dieng doon amal jeno ak taskatu xibaar yi mu ne dara waralu ko lu dul dundu gu gi. loo gën a mën a wàññee diwlin wàññi ceeb wàññi meew pour Sénégal yi kontaan. noonu ñu gën a wàññi dund li ñu gën a wàññi ceeb wàññi diwlin wàññi suukar wàññi meew sunguf meew dimanche fee dafa bëgg tabax ñu wàññi lépp ak courant bi su ko defee Sénégal yi gën a gis seen bopp rek day gën a neex monsieur le président de la République président mouvement MJK DFS derrière Diène Farba Sarr wax na tamit ci location bi nga xamante ne nguur gi wàññi woon na ko fii waaye dafa mel ni amul toppandi location bi askan bi sonal la leen te wàññi woon nga jugee mbir mi taxaw ñëpp toog di jaaxle am na ñoo xam ne am nañ problème fay néegu cinquante dañ koy lijjanti ba sonn politique boo mën a def loo mën a doolele nit ñi loo mën a jàppale ñi ba location bi wàññeeku ku dem fay cinquante fay ku dem fay cent mille fay billaahi wallaahi ta boo ko defee yàlla fay na xew-xew bi Ousmane Noël Dieng doon amal ci quartier Léona mu ngi ko duppee woon bésub sant yàlla mu jaar ci wax ci tolluwaayu politique bi fii diwaanu Kaolack mu élection bi. président Macky Sall moo ñu yónni woon si askan wi ñu dagaan ay baat waaye ba ñuy war di dagaan ay baat askan bi jox nañu seen doléance man nag bëgg naa Macky Sall lool son excellence sama xol bi boo ko ubbee président Macky Sall rek ci nekk bëgg naa Diène Farba Sarr lool ku nga xam ne monsieur le ministre Diène Farba bu bal fateel dem ñëw mu war koo dal man maay taxaw bu dal ma mu dund. waaye ñoom ñëpp li ma leen bëgg bëgg bëgg bëgg Kaolack moo ma leen gënal politique ni da ngay njëriñ nag bi mo dee nag ba boo demee fexeel ba dagg ci nag bi bi nga indil waa Kolda ci nag bi. bu ñu sukkandekoo nag ci ay kàddoom nee njiitu réew mi woo ko bi élection yi jeexee di ko félicité moom président Ousmane Noël Dieng wax na ko comme waxu ko ko ci téléphone waaye ci micro taskatu xibaar yi moom nee na président Macky Sall na gën a dooleel mouvement bi mu jiite di MJKDFS gilaat Diène Farba Sarr def ko patron bu coalition Benno Bokk Yaakaar fi ki diwaanu Kaolack. Cheikh euh, Tidiane ci ndam loole nga xamee ni itam nee nañu am nañu ko ñoom waa Ousmane Noël Dieng moom nag nee na béy na ca rek waar wu yaatoo yaatu maanaam daal bu du toon ak moom làmbaay ñaaw laata itam mu doon jeexal ay kàddoom foofee daal di dafa yedd nag Barthélémy Diaz ca kàddu ya mu yëkkati jëmale ko ci Mimi Touré Ousmane Noël Dieng ba tey ak Cheikh Tidiane Diagne. ñu rafetal kàddu ñun politiciens yi fexe ba luy rafet di génne si ñun naa jox conseil aussi grand monsieur bi nga xam ne respecté naa ko engagement am nag détermination am nag gëm boppam muy monsieur le maire de Dakar Barthélémy Diaz respecté naa ko trop ah jox naa ko ma cër waaye dama dégg barki démb mu saaga Mimi Touré yow ngay maire de Dakar nit ñi di la xool Dakar lu mu réyee ñaata personnalité ñoo fi nekk Dakar ñaata nit yàlla ñoo fa baax ñoo fa nekk ñëpp yow la ñu déglu yaa seen yàlla jiite la si ñëpp nga albatu ko ak sa jëmm taxaw ci internet di saaga nan te Mimi di kilifa Mimi am ay doom Mimi am lépp nga naan ko da nangam loolu du bon exemple da nga war a ñëw jox ñu ndaw yi bon exemple man je vous respecte trop bien parce que am mairie Dakar man dama la ci respecté ndax corona Barthélémy Dias dafa jóg di def social social moo yéegal nit def social loolu moo def maire Dakar ma gëm la loolu kontaan ci loolu mais nag boo ñëwee jël ab saaga di ko def ci kilifa politique jaru ko politique dafay jeex te lu mu yàgg-yàgg dañuy dee lu mu yàgg-yàgg dañuy màgget te internet tuddul internet éternel la tudd loo fi wax loo fi jëf ëllëg dinañ ko tappe sa doomi tappe ko wala sa sëriñ tappe ko gis ne papa yaa da parce que nga wax ko ñaaw na ngay saaga ndaxte exemple nga ay junne junne nit ñoo sa ginnaaw di xool li ngay def donc li ngay wax war na rafet li ma bëggoon wax rek mooy sant président Macky Sall félicité leader yi nekk Kaolack yëpp nga xam ne ñun ñëpp ñoo nekkoon ensemble ku nekk di bay sa waar ci liñ doon def waaye nag xam naa ne xam na sa patron ci mbir ci terrain ñu bëri fu nekk fa ngeen dem xam nañ ne wax nañ leen ne fii de Ousmane Noël moo ko na ma maa ngi min jiitaloon ci local yi mu ne ma Ousmane fu ma mën a dem nga ne ma Ousmane Noël mokkal nañ fi ba pare fi ñun Ousmane Noël lañu àndal barke alxuraan mu ne dem naa Medina Mbaba ñun la ñun Ousmane Noël la ñu àndal mokkal nañ fi ba pare ñun dañoo liggéey te liggéey tuwun moo wax monsieur le président Macky Sall ñu lay ñaan ngir jëm Seydina Mouhamed waxuma la kaw la kese kaw la dama koo jéggi même Dakar boo ko bëggee téye sa loxo yi doole la mouvement mu nekkoon ay kaddu njiitalal MJK eh, ci njiitalal Mouhamed Ndiaye Rahma waa Benno yi itam eh, ba tey ña nga doon amal rek ab ndaje fii ci eh, Kaolack ngir naka daal di rafetlu liggéey bi nambo résultat nëgandiku yi waaye itam naka daal di feddaliwaat seen kàndo ak dogu ngir daal di liggéeyal njiitu réew mi Macky Sall Mouhamed Ndiaye Rahma àdduna ca ci micro El Hadj Oumar Cissé. di baax itam suñu rak Aïssatou Ndiaye Ndiafat bu département bu Kaolack moom itam ko gërëm di ko wax ne ko ko waxoon démb rek ci la lañ nekk jàmbaar la la xeex kan la ku la incha allah bu mu xëy rek dinañu gis suñu wet ndax ñun président Macky Sall dong moo ñu mën a conditionné amul keneen moom dong it la ñu liggéeyal du keneen moom dong it moo ñu mën a jox orientation du keneen te orientation yi président joxe mi ngi ci maa ngi koy félicité di ko encouragé di ko wax ne ko lépp lu mu soobu dinañ ci dimbali pour dimbale di wax nag ne fii ñu toog tey ci dawla kilifa yi daje tey nga xam ne ku ci nekk sànni sa xeer ci biir combat bi mooy yaakaar ñu def tey élection yàlla dimbale ñu coalition bi génn gañe département bu Kaolack kon loolu jar na ñu wax ko jar na bu ñu daje mais wane waat suñu engagement ci gannaaw président Macky Sall ci tey ak ci ëllëg combat yëpp travaaw moom lañ romb lépp li ci war def nañ ko waaye lépp lu nekk dama lépp lu président Macky Sall nekk ak lu mën a doon ñun waa coalition bi génn Kaolack ña a ca incha allah bu njëkk loolu ñu ko koy seedeel suñu gudd yaa suñ bëccëg yi kenn mënu koo jël ci ñun ku dul moom te moom dong la ñuy déglu moom dong moo ñu def orientation démb ak démb ca incha allah fii ñu fi nekk yëpp seen jëmm yi seen alal yi seen temps yi ko def incha allah ci ginnaawam ba lépp li nga xam ne bëgg na ci ak moom lépp lu mu bëgg ci punti yi incha allah nekk ca kanam ànd ci ak moom lépp lu mu def d' accord nañ ci validé nañ ko mu koy dëkk ànd ak moom incha allah ba jàppale ko boobu muy maam ci réew mi mu yeggale ko ci jàmm loolu mooy engagement bi boobee nag mu ne li koy gën a fësal moom Mouhamed Ndiaye Rahma mooy rek génn ci terrain bi àndoo doon benn liggéey mu yokk ci itam di wax ne coalition bi di coalition benn Bokk Yaakaar tey jii la gën a dëgër fa mu nekkoon a jógu fa ay kàddoom ba tey la ñuy taataan. taw la comme nekkoon démb ak bëri ci démb président Matar lañ fekk ne ci dana nekk incha allahu loolu suñu kanam la nekk nekk suñu ginnaaw di wax rek mboolem responsable yi ne nañ fas yéene takkaat seen jaaj i sa bopp ci leneen parce que liggéey terrain bi dafa bëri képp koo xam ne li terrain bi laaj nu woo ko cee jox bàyyi yoon bi ngay daal loolu lépp terrain bi engagement la laaj ak détermination ak dëggu ak parti ak parti bu ci nekk lu chef bi joxal lu mën a doon da war a exécuter ñun ci camp ci armée lañ nekk armée nag bu général bu génnee bu ne ñu ñu France bu ne ñu yenn génn mooy bi nga xam ne moom la ñuy lu président ko lu bëgg ñu def ko bu kàddoom xasee ba génn bu la lenn lenn nuñ ko am lu may lëm bëgg ñu defal ko loolu mooy engagement bi ñun waa coalition Benno Bokk Yaakaar ci loolu lañ nekk incha allah dañ ci ànd ak moom ñu koy félicité ci ndam lu rëy li nga xam ne moom la am ci biir Sénégal li président wax dëgg dëgg wax dëgg am da xam ne ñu majorité moom waxatuñ ko a nañ loolu kenn waxatu am nañ majorité bu wér te incha allah daañu continuer gouverner a continuer a incha allah Mouhamed Ndiaye euh, Rahma ca geneen wàll ga nag euh, kii di njiital jigéen ñi nekkee ci mouvement bi di crème muy Kaolack sur les rampes de l' émergence moom nag ak ay militangam ña nga doon amal rek ab point de presse ngir naka daal di a jëmale ko ci résultat nga ndiku yi ak it nag liggéey bi ñu ci def ci département bi lu muy loolu tamit woo nañu rek njiitu réew mi ak député yi war a ñëw ngir nag ñu daal di gestu rek ñi di jigéen ñi ak ndaw ñi fii ci diwaanu Kaolack Mariama Cissé mi ngi ci micro bi ay ñuy sant yàlla bu baax bi ñu yàlla joxe ndam di ndamal Kaolack di ndamal Saloum jongante yi def nañ campagne li ñu waroon def yëpp def nañ ko ñu àndandoor fii ci Medina Baye man Mariama Cissé ak Adja Sawda Cissé ak responsable yi nekk Medina Baye yëpp ñu ànd derrière ma demb bi tey dugg ci kër yi def sunu ay proximité waxtaan ak nit ñi xamal leen ne candidat bi gën ci candidat yi mooy candidat coalition benn bokk yaakaar te ma Mademba bi tey jiite ko nit ñi nangul ñu ko c'était pas évident wax dëgg yàlla ndax sunu concurrent tête de liste yeewi bi muy Adja Zeynabou Cissé sunu doom di dëkk bi waaye yàlla may yàlla maye ndam nag ñu ngi félicité monsieur le président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall ndax ki mu jiital moo jar a jiital c'est l'homme di social collectif mais aussi c'est l'homme di consensus mu ànd ak leader Kaolack yépp nekk un bloc ànd ak seeni militant ak seeni responsable ba tey yàlla may ñu ndam li ñu may dañu gagné woon ci élection locale yi waaye ñu ñëw relever le défi ba nga xam ne tey ji école Médina coalition benn bokk yaakaar moo ko kon loolu ndam bu rëy rëy rëy ñu gagné également la région de Kaolack ndam loolu gën a neex Sénégal mu demee département yëpp presque ñoo leen gagné loolu nag liggéey bu yaatu boo xam ne président Macky Sall moo ko liggéey fii ci Sénégal def si ay réalisation ak i projet yi nit ñi am ci moom confiance woolu ko jëlaat seen carte jox ko mais surtout fii ci Kaolack ñu jël seen i carte sànnil ko Pape Mademba Bitèye mi nga xam ne dafa liggéey démb tey élection yi doog ñëw mu jël éclairage leeral dëkk yi ci Saloum yëpp le président Macky Sall avait fait un bon choix dinaa wax le leader Pape Mademba Bitèye ak le président Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom la ñu tànn ci Kaolack bokk yaakaar ngir mu jiite waat am majorité assemblée nationale majorité boobu am nañu ko vu les kon président ñu ngi lay wax ne continuer say projet nga yeggali ko ndax Sénégal gis nañ ci seen bopp mais Kaolack gis nañ ci seen bopp nga gestu waa Kaolack rawatina jigéen ñi ndax jigéen ñi kat takkaayu nañ soxla nañ ay financement suñu dëkk bi tamit bëgg nañ nga defar ko jeunes yi aussi ñoo ngi fi ndax jeune mooy politique fi mu nekk nii jeune mooy fal ak jigéen. ñu euh, des ba tey nag ca ndaje moomee militant ya itam naka noonu rek yéey nañu yàbbi nag jëmale ko ci njuréef yi boole kook nag di woo njiitu réew mi i Sall ngir mu fay naar bi xoromam seen i kàddu noa bi ay moo ko tataan eh, métti woon na ca taaye te xam naa ne man ci ñu ko métti woon ci laa bokk te yàlla def ma ñëw jox ko loxo ci tànku Pape Demba bi tey jàppale ko jox ko loxo yàlla nag may ñu ndam bu rëy macha allah fii ci kaw ñu ngi remercier ñi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo àndoon suba ngoon guddi ak bëccëg bu Kaolack amee ndam Medina Baye moo am ndam bu Medina Baye amee ndam ñu ngi koy fàttalil moom Pape dem bi tey di fàttalil euh, président ne ko Kaolack soxlawaat nañ bu baax surtout jigéen jigéen ñi nag liggéey ci affaire bi dañoo nalawatuñu njaboot gi gisatuñ leen vraiment talatuñu dara ak suñ caamin yi nga xam ne ñoom ñooy borom kër yi tam ci turu staff bi nga xam ne ñoo doon ànd ak Mariama doon liggéey guddi ak bëccëg man maa ngi juddoo Kaolack màggee Kaolack ba yem nii ma yem waaye liggéey bii dugg naa ci ay ruq yoo xam ne ci Kaolack musuma fa taxaw sama tànk musu fa taxaw te loolu kan moo ko jar Mariama Cissé ak Pape Demba Bitèye ñu liggéey ba yàlla may ñu victoire bii ñun proximité bañ koy commencé booba weeru koor terogul gannaaw loolu li may wax président de la république ñun ay militant première heure lañ ñi ngi ànd ak moom waa Kaolack 2014 ànd ak moom 2016 ànd ak moom kon fi mu nekk opposition bi di wax particulièrement yeewi intercoalition boobu ñuy wax yeewi ak wàllu dañu bëggoon leeral opinion bi ne leen intercoalition yeewi ak wàllu du intercoalition boo xam ne dafa am avant ñuy dem élection ndax bi ñuy dem list liste yi dafa demal boppam list wallu dem ak boppam looloo tax bu ngeen demee ci bureau de vote yi ngeen gis fa bulletin yeewi gis fa tam bulletin wallu donc ñaar yooyu seen intercoalition bu ñuy wax après ba ñu déposé ba pare la ba bulletin yi génn pour jéem a nasaxal xelu nit ñi li Yewwi am ak li Wallu am bu ñu ko boolee ñooy ëppale majorité bi alors que calcul bi c'est pas te même bu doon loolu sax mënuñu am majorité ndax 29 départements ñu gagné yëpp ci Sénégal te boolewuma ci diaspora loolu rek 58 la te bu ñu boole woon tey li Yewwi am ak Wallu ci ñu ngi leen voteel ñoom ñaar bu ñu leen boolee loon rek Benno Bokk Yaakaar moo leen ëppale comme que nag moo leen ëppale moo la war a ëpp député te même bu fekkoon ëppalewu li nga ne moom la Benno Bokk Yaakaar gagné ci ay département moo ëpp xool lu gagné ci ay ñu dem xooli ji euh, ñeneen waaye intercoalition euh, Yewwi Wallu boobee nag muy euh, junju bu département bu Kaolack bi ñoom itam nag desuñ ginnaaw rek ci wàllum jano gi ci turu Adja Seynabou Cissé ma nekkoon tofoy tête de liste bi ci département bi di docteur Abdoul Aziz Mbodj moom nag nee na Kaolack moom waaye Yewwi Askan Wi ñoo ko moom ndaxte itam dañu fee am victoire boo xamee ne amul benn laam-laamee wàllu campagne beeg wàllu tànneef gi loolee lépp dikkaat na ci ci waxukaayu Cheikh Ababacar Dieng yàlla def tamit tànn biñ ma tànn tamit juumuñ ndax du man lañ tànn dañ maa tànn ngir fi ma bokk hmm. dañ ma tànn ngir samay waajur ku tànn kooku mooy na tànn nga métti na ku tànn kooku tànn na waaye yow waa Kaolack seetaanuñu wéetuma ci yoon bi départ bi nag jafe woon waaye alhamdulilah ah. ñu sant yàlla bi nga xamee ne campagne bi mënee nañ ko ci jàmm ak salaam looruñ kenn kenn looruñu loolu rek victoire la ñi àndaat ci tamit ñu ñëwaat fii Kaolack nga xam ne dama ko bokk ak ay kilifa yu bëri ñi indi seen lépp pare koo def pour jënd askan bi askan Kaolack bañ na ñoom dañoo sonn ci jënd bi dañoo sonn ci naxaate bi dañoo sonn ci lépp ñi tànn ma ànd ak man yàlla may ñu victoire bi ñu bàcc bàccal bàcc bàccal ñëpp ci xiir yi ñu amee du la bett la wala xalaatu nga ne mën ngaa gagné ko. non teel naa koo xam ñoom xam nañ ko sax. parce que man maa ngi doon waxtaan ak ñenn ci ñoom. parce que démocratie la ñu wax gis nga campagne bi ni démocratie di ciy feeñ. mënoon naa métti te métti wut. que ñi nga xam ne dañoo opposé wu dañuy tasee di waxtaan parce que benn kër la. ànduñoo ak man. waaye am naa ñi ànd ak man. léegi bi ñu tasee damay wax ñoom ñoom teel neen wax na ma. Kaolack moom xam ne ne yaa ko moom. waaye département bi danañ leen fa gagné. leen loolu mënta ne. xam naa nag bu ñu lijjantee fii ba sonn mbir yi seere ñun ñu doon dox ñu ngi tasee ñoom ñoom ñoo dugg fenn fii Kaolack moom fu ñu dugg dañ naan tekk seet soo ne leen yeew la ñu ne laa sey daa yegg soo waxee leneen da ngay gis nii la ñuy def kon xam naa ñoomi loolu lijjanti neen ko ba xam man teel naa xam ne fii Kaolack moom ñun ñoo ko moom yeewi dana ko dóor xam naa nag taw bi sax nag moo tax lañ bëggoon dëgg-dëgg amuñ ko waaye bu tawutoon wallaahi laazim danañ leen fi dóor dóor yoo xam ne mosuñ leen koo dóor maa ngi gis nag ñenn ci ñoom nag ñu ngi manifesté naan dañoo gagné waaye bu ñu amoon lu ñuy manifesté wu duñ ko defee fii Kaolack ah, ah, Kaolack ñun ñoo ko moom Medina Baye ñun ñoo ko moom ak Kahone fas Cheikh Tidiane amul ñu leen dóor ñoom bu ñu amee bay feete dañu waroon a dem ba Këbatooci ñu toog foofu def fa liñ fay def waaye fii Kaolack amul Adja Seynabou Cissé dañuy des ba tey ak waa Yewwi yooyee waaye nag daal di la beneen gox gannaaw itam bi résultat nëgëndiku yi wone ne moo jël raw gàddu gi ci lu amul benn werante ca département bu waa Bignona kii di docteur Gnima Goudiaby ma nekkoon nag tête de ba bu Yewwi askan wa foofe moom nag ma nga doon fàttalikuwaat rek li mu digaale woon ak askan wi ci campagne électorale bi nee na nag bés bu àggee ca pencum ndaw réew mi dina fexe nag taxaw temm ca jafe jafe-jafe askan wa nga xamee ne si ñoo ko faloon kaddu ya mu rotal Mouhamed Sagna moo ko taataan. parce dañu bëgg assemblée bu bees assemblée boo xamee eh, nit la président de la république am parce que même nit ñi ñoo la votel donc tey jii da nga war a assumer sa responsabilité boobu mooy nga xool ndax gouvernement bi la ñu wax ne moom lañ def est-ce que ñooñ koy def wala defuñu ko nga seet tam yow bu fekkee ne foog nga ne mën nga lijjanti ba def beneen loi bu bees boo xam ne ñi nañ ci gis seen bopp nga fexe ba loi boobu ñu bind ko donc loolu yëpp bokk na ci liggéey député waaw loolu tamit bëggoon naa vraiment ñu partagé ko xam ne ah bi ñoo na moo ñu ñor ñun ñëpp liñ ci ñaanoon yàlla def na ko mu élection dem ci jàmm ak salaam ci war a gañe gañe te ñu xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay jàmm rek moo fi mën a xaj leneen moon fi ne département bi man li sama yéene mooy bañ a gëj ci sama population d'autant plus que man maay première vice présidente conseil départemental donc mënta doon am na yu bëri yoo xamante département mënu ci dara il faut ñu yéegal ko ci kaw assemblée mu am ci solution te loolu moo tax ma ne tey liggéey boobu dina ma yombalal parce que sama position la may may daan donc may wax ne population bi li ma ci gën a kii mooy comme ni ma daan def rek danaa gën leen a jege ñu gën a liggéey di lëkkaloonte di xam ne am nañu charge boo xamante ne il faut cas bi ñoo naa surtout nit ñi gis seen bopp ci assemblée bii di ñëw te incha allah dinañ ci béy suñu waar bu ñu yegg si euh, ci ponk bi nga xamee ne ak ak njàngat la gannaaw nag coow li mu juróon ci campagne électorale bi ba ñu jàpp ne fa yem lii di cohabitation nag ma ngay des ba tey rek di sooke ay werante ak i waxtaan ci biir askan wi moom nag suñu ndaw Alioune Badara Diop samp ci ab waaye daal ay xalaat yu wuute te waroo moo ca daal di juddoo ñu teewlu bi les reportages. élection législative 2022 ñu amal ko ci anam yu mucc ayib li nag doon loo xamante ni li ëpp ci askan bi moom mi seen gët ba pare rafet lu ni mel Ibrahima Gaye moom dolli na si di ñaaxaale ndaw ñi nga xamante ni ñoo ñu war a teewal foofu ca penc ndaw réew mi. élection gis naa ko d' après les gars li ñu wax si médias nee nañ vraiment ça s' est bien déroulé mais man daal en ce qui me concerne nañ liggéeyal population man daal loolu moo ma concerné mais député dem à l' toog rek doo am sax contact avec la population lu di toppatoo sa affaire man daal loolu laa d' accord. ñu samp ab laaj ci wàllum cohabitation ndax ndax mun na am waaw wala déet Idrissa Diop moom di étudiant la di yëngatu ci wàllum science politique moom nag nee na am na ci yaakaar bu baax a baax. d'après li ñu déglu de dimanche passé moom bi ay dix huit heures yooyu jotee résultats yi gars yi commencé joxe moom ah yaakaar nañ ne daal cohabitation moom dana am. waaw loolu moom yaakaar nañ ko lool sax. Ibrahima Gaye mel ni ku koy feelu ci wet gi di dëggal li ni mel ndaxte nee na cohabitation moom dina tax askan bi gis seen bopp ci doxalinu nguur gi. cohabitation na cohabitation baax na cohabitation vraiment <laughs> c'est une très bonne chose parce que tam cohabitation. dina permettre que gars yi duñ voté lu leen neex. ci xaarandi yi résultat yu mujj yi ci élection législative 2022 yi njot a amal ci dibeer gi ñuy weesu lu bëri ci askan bi ñu ngi fàttali ndaw ñi nga xamante ni ñoo war a teew foofu ca ndaw réew mi doxaleen gi nga xamante ni ñoom la askan bi di xaar ci ñoom wante mission bi nga xamante ni war nañ ko am foofu ca pencum ndaw réew mi te mu tommanteeg fukk ak ñeenteelu législature yi. xabaar yi bitim réew. yeeg si euh, nañu ci ñaareelu xaaju euh, xibaar yi biti réew Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf euh, soxna Ngoné xibaar yi bitim dañ koy doore réew bu Tchad wax ci rebelle centre africain bii di wuyoo ci tur Abdoulaye Miskine moom na waxtu bi ñu toll nag mu ngi nekk ci kaso bi ba léegi ginnaaw bi ñu dooree atem bi ci fàttali nag moom ma doonoon njiitu groupe armée bu front démocratique du peuple centre africain ñu gën ko xamee ci FDPC moom nag ak ñetti naataangoom yoo xamante ni ñoom la àndaloon ba tey ñu ngi des ci kaso gi nag ñoom moomule ginnaaw bi ñu leen tegee loxo ci weeru octobre atum 2019 booba léegi nag bërëbu attekaay yi moom waxaguñu woon dara ci seeni mbir xabaar yi bitim réew wax ci beneen mbir di Ayman al-Zawahiri moom nag doonoon benn acteur buñ jotoon a ràññee lool ci wàllum jaadis islamique ci Afrique ci fàttali nag bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoom lañ doon gën a wër ci àdduna bi ci wàllum jihadis moom nag doonoon na chef al-Qaïda ci week bi ñu weesu nag ci lañ faat bakkanam ñi def na li ni mel ne du ñenn ñu dul américain yi ci benn appartement boo xamante ni mu ngi nekk foofu ca Kaboul xibaar yooyu la ñu ngi ko jot ci njàppandalu njiitu réew bu États-Unis di Joe Biden xabaar bitim réew dem ba fi nga xamante ni mooy Congo Brazzaville wax ci parti congolais du travail moom nag jot na jël raw gàddu gi ci élection législative yi nga xamante ni ñu ngi ko doon def foofu ca réew bu Congo Brazzaville am nag luy tollook téeméer ak fukk ak benn député parti bi nga xamante ni nag moo fare ci gouvernement bi ginnaaw ci premier tour bi ñu jotoon def ci fukki fan ci weeru juillet bi ñu weesu ñu gañe woon nag luy tollook téeméer ak ñaari siège ginnaaw nag bi ñu defee lii di deuxième tour bi jot nañu dëggal nii ginnaaw ci xibaar yi nga xamante ni jot nañ koo fësal ci talaata bi ñu weesu jëwriñ ji nga xam ni moom lañ dénk wàllum élection yi di Guy Georges Mbaka moom na jot na dëggal ni parti au pouvoir bi jot na am lu tollook téeméer ak fukk ak benn élu ci élection législative yi nga xamante ni mu ngi doon am foofu ca réew bu Congo Brazzaville. xabaar yi bitim réew. dem ba réew bu Soudan wax ci chef militaire bi di wuyoo ci tuuru Emeti moom moom la jot na fësal ambition ci wàllum politique ginnaaw ci benn interview boo xamante ni def na ko nege ni démb ci ngoon ci këru taskari xibaar bii di BBC nekk foofu ca réew bu Soudan ginnaaw bi mu jotee fësal nii moom moomu la du bokk ci élection présidentielle yi yi nar a am foofu ci atub 2023 ci kaw nag mu gis loo xamante ni dal na xelam. ci waajtaay élection yi nga xamante ni ñu ngi ko jàpp ci atum 2023. xabaar yi. bitim réew jeexali xibaar bitim réew ak feebar bii di variole du singe ginnaaw bi ñu jotee gis yenn ci ay loraange yoo xamante ni jot na ko def ba tax na ay kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànk wàllu wér-gu-yaram bi foofu ca réew bu France ñoom nag jël nañ ay matukaay mat sëkk ngir kat xeex ak jàngoro bii di variole du singe ginnaaw ci loolu léegi fësal nañu benn vaccin boo xamante ni dana jàppale askan bi ngir kat ñu mucc ci bile feebar ndax nag bëgguñ benn yoon feebar bi law ci bile réew rawatina ci àdduna wërngal këpp xabaar bitim réew jërëjëf soxna ngoon yi foofu lañ yam ci li nga xamante nii mooy xibaar bitim réew yi di la kenn ay jàmm Bac eh, Bagoog xabaaru eh, tàggat yaram Serigne Moussa Kane ngi lay nuyu. Ngone ngi lay fay te nuyu yi di jàmm di ko sàkku ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ak affiche ñaari wërngal aller éliminatoire CHAN 2023 ñaar fukki fan ak juróom-benn ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août gi Sénégal nag dina laaleeg Guinée Sierra Leone dina laaleeg Mali Côte d'Ivoire dina laaleeg Burkina Faso Togo dina laaleeg Niger Nigéria Congo Brazza dina laaleeg République centrafricaine Cameroun dina laaleeg Guinée équatoriale Éthiopie dina laaleeg Rwanda Angola dina laaleeg Afrique du Sud Sénégal Guinée kii di Bouli Junior Samb nag wax na si ne jot na nag fu mu toll nii ñu daal di vaincre signe guinéen bi Bouli Junior Samb. balaa double confrontation bi contre euh, la Guinée donc euh, et puis y a des choses à régler mun naa ne ni si tournoi bi mun nañu gën a mun a régler problème yooyu boobaa contre Guinée ça sera facile. malédiction la boobu ñëpp ko xam parce que Guinée dafa yàgg éliminer Sénégal mais ñun suñu groupe bu ñu yor nii mun naa ne nii ren dañ koy dàq voilà parce que dañ koy waxtaanee te ku nekk tey boo ko interrogé woon dala naan si biir xolam ni Guinée du ko gagné donc loolu rek arme la te ñu ngi siy préparé comme il le faut et incha allah dinañu yóbbu équipe bi ren chan incha allah. ñu waxtaanee basketball ginnaaw tirage de finale ci góor ñi quart de finale ci jigéen ñi ci coupe nationale bi nag xam nañu ko bu weesoo choc yi war a dox ci diggante ISO ak Saint-Louis basket club DUC ak Louga basket club ci góor ñi gendarme bu Dakar di baloog basket club ISEC loolu ci jigéen ñi lay doon kanawa kayak équipe nationale bu Sénégal bi teewaloon nag ca championnat du monde ya amoon ci slalom ca Augsbourg ci biir Allemagne. représentant sénégalais yi nag di Jean Pierre Boris ak Yves Boris ñoom nag ci demi-finale yi la ñàkkee li nga xamante ni moom mooy tournoi bi ginnaaw départu Kalidou Koulibaly kii di Aurelio Di Laurentiis di président bu Naples nag jéem nag génn na wax na ay kàddu yu ñaaw ndax nee na moom fu mu toll ni nag dootul signéti benn footballkat africain bu weesuwul ñu tegal ko condition bu mën a tax mu daal di ñàkk place am ci Coupe d'Afrique des Nations daf ci wax daf ko war a jubbantiwaat gardien de but allemand bi di Bernard Lemo te nekk foofu ca Arsenal nag xaatim na ab contrat wu ñetti at ak ñi di waa Fulham Renato Sanchez di ab portugais nekk foofu ca Lille waxtaan bi doxoon ci diggante PSG ak Lille nag daal di nañuy déggoo ab xaatim ba doomu Portugal bi nag signé na fi nga xamante ni moom mooy Paris Saint-Germain ci fukki million ak juróom-benn ci wàllum euro jeu de la solidarité 2022 kii di Malick Ndiaye ak Sangone Sarr nag ñoo bu Sénégal nag compétition bi nag dina dajale ay junniy junniy athlètes yu bàyyi ko ci juróom fukki dëkk ak juróom benn Sénégal nag fu mu toll nii contingent toll nañ ci téeméeri athlète Magok Ngoné Ndiaye gannaaw ba la ñaanale yu jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi ji li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf ci euh, yéene kaay yeeg El Hadji euh, Seydina Omar Cissé ah. ahalan bikum ala addu kalpe sunu ndam li kenn du ko foqarti ñun waa yeewi askan wi ak wallu te lépp lu mu laaj fañ koy def xeex ñàkkante ak Macky Sall ak ñim àndal benn bokk yaakaar ndax bëgg-bëgg askan wi duñu seetaan mukk ñu koy foqarti lii la Khalifa Sall wax ca Vox Populi yaaw seetal ndekete yoo benn bokk yaakaar fa ñoo soppi résultat ya am ca département bu Podor Matam Ranérou ak Kanel fa ñoo jël ay ay yoo xamante ne kenn signé wut ko du président bureau de vote ba du kenn maanaam amul signature bindal fa seen bopp ñoom waa benno yi escore lim yu leen neex di yokk ba am ay junney junney voix wàññil waa yeewi ak wallu ci gàttal daal fexe nañ ba lijjanti fa ñeenti député lépp ngir mën a am 82 député Déthié Fall moo ko leeral démb ba ñuy jënd taskatu xibaar ya ñu wax président commission ba na ko lii fa garaaw léegi fañ koy photo mën ko wan sénégalais mu ne leen déedéet fa ngeen di xoore waaye du ngeen photo mais lii fa garaaw résultat bureau de leer ñu jàpp leen ndax waa benno yi xam nañ gagné yokkalu seen bopp buñ demee ci liste nationale yi ñun yeewi ak wàllu ñoo leen di ëppale ay député te su ñun fa ñu am majorité mooy 83 députés yi ñu leen waxoon ba tax Ousmane Sonko ne Macky Sall faa bëgg nga delloo si sa xel dëkk di am ndam rek amut fenn yàgg ngaa dem ay wote am ndam mu neex comme na nga ko daan waxee wote Fatick dem tëdd sa kër ngoon ngay dégg bàcc-bàcc yi léegi fi mu toll nii su yëf yi ëlbatikoo bañ bàcce sa njaboot gi benn bokk yaakaar nga xam ne loolay àdduna kon faa bëgg yow Macky Sall nga wane sa dignité ak grandeur nangu li bëgg te xam nga ne ñàkk nga wote yi ah, yow seetal assemblée nationale bi weesu presque am nga lu jege cent quarante députés léegi soo demee bay xëccoo ay quatre vingt deux députés laa am ak laa am ak bi di lijjanti benn député suñ diggante loolu mooy firndeel ne sénégalais yi pare nañ ci yow doyal nañ wan nañ la ginnaaw te leen li fa ñaaw rus lu boole ci ana lu ko fi jar naka noonu moom Ousmane Sonko woonaat attekat yi ñu atte dëgg yoon takk der yi ñu ci wetu askan wi sàmma leen seen bëgg-bëgg suñ foogee nag na n ñuy toog leen ñu yokkal fan yi Déthié ko na ko ñun kay bi résultat yi mu war a joxe tey ci alxames bi bu ko joxe nañ ko randal ndax fa ñuy delluwaat ca kees ya sotti yëpp rawatina yu fuuta ya génnee mbolam PV boo xam ne baaxul amul signature ñu neenal ko ndax ñi fa ñuy sàcc Abdoulaye Seydou Sow na leen yéen taa ngeen ragal yàlla ci li ngeen di wax yéen waa yeew gis nga ñun ñoo am majorité assemblée nationale muy taw naaja ci yem nag fañ doon jogante gañe nañ leen ndaw yu Podor tontu nañ waa yeew tey li ñu jort mooy bokk yaakaar fa ñuy wax ne am nañ 82 députés yeewi askan wi 56 wàllu 24 léegi nag soo boolee yeewi ak wàllu 80 députés la ñuy am Thierno Alassane Sall benn député Pape Djibril Fall benn député Pape Diop benn député te mooy yéen a gis ngeen cohabitation coole fi nekk rek mënta ñàkk de lu yéeme la nag ndax même bennoo seen 82 députés yi ñu lijjanti bu fekkee sax am nañ ko mooy tekki ne ñoom amuñ majorité 83 muy majorité bi xam nañ li ñuy def de waa benno yi ci ay pexe lañ nekk Baara Gaye bokk ci waa wàllu yi moom ma ngay artu ay mbokkam député yi wàllu ya ne na ngeen moytu ku fi Macky Sall jënd ba nga dem fekk ji benn bokk yaakaar da nga ko digaal ak sénégalais yi bu ko kenn def laa wax laa si yéene mel ni ku naan ko sénégalais yu bëri nag ñu ngi ruumandaat ne waa wàllu yii fa ñu fekki benno l'observateur ne ko man laa njortu gis nga ànd yeewu a wàllu ji local yi ñu fekk Macky noonu la leen di def ñëpp di wan ginnaaw des ak Ousmane ak ñi àndal waaye yow ya info yéen a kaay ne PDS nga xam ne wote yi daf cee judduwaat kon bu ñàkk fayda bay dem di fekki benn bokk yaakaar professeur Moussa Diaw di jàngalekat ca université Gaston Berger ne faa leen di wax gis ngeen Macky Sall mi li ko dal nii mooy nguur guy jeex la benn bokk yaakaar yaw seetal moo fi ëppoon doole wote yu mu dem mbuqi gaañe suñ demee bay jafandu a lijjanti benn député tolloon nañ ak mooy ne sénégalais pare nañ ci ñoom turbine yéen a kaay na dal la daloon Ablaye Wade ak waa CAP ya ñoo ko sànk Macky tamit fi benn bokk yaakaar moo ko nar a moo tax fa war a tas benn bokk yaakaar ah yow AFP PS réew mi ay parti la yoo xam ne xam nga lan la jëriñ Macky Sall dara xanaa séddoo ay poste jot seen wàll ci gato moo tax benn fa war a tas la lu Macky Sall nar a tas mooy gouvernement bi léeg ko yéen a kaay moo ñu ko xamal démb la dajeek ñoom ministre ya waaye xam nga lu leen ma ne a kaay ne démb conseil des ministres a gaaw é benn waxtu alerte yéen kaay na remaniement dàq ay ministre loolu mu mënta ñàkk Macky faw mu dagg bopp lu ëpp fukki ministre ak lu topp ay ministre yu bëri rawatina ministre yi nga xam ne fañ leen a mbuqi ba ñu bëgg a dee ci wote yi lii yéen kaay na Macky kay démb jëruñ ji ñu dénk wàllu biir mi daal la félicité ci organisation wote yu jaar yoon yi ña des faalawul leen le mandat yéen kaay na mbuqi yi métti yi mbuqi bennoo moo tax gouvernement bi Macky fa koy tas amul sax xel ñaar tabbu premier ministre ak ministre yu bees la nar a bees ci assemblée ñoo fa nar a dem nekk ay député yaaw seetal Biram Souleye Diop Ramasi Soxo Abba Mbaye Barthélemy Diaz Ahmed ay dara Marius Sagna enquête yéen a kaay na ndaw yi xarañ nañ bëgg nañ seen réew mën nañoo wax te mooy yéen a kaay na ko faale ci yokkal Pape Djibril Fall leer laneen lu leer ba yegg ca mbay kenn ci farandooru mag yi njiital la Soleil fañ ko porte plainte ca OFNAC ngir faxam xalal ju bëri joo xam ne dara ca lewut loolu lañ ko tuumaal alerte yéen a kaay ñu ko xamal keneen ku ñu tuumaal maanaam viol Sitor Ndour mi fi jiite woon kut ca mbindaanam ba a kaay nee na procureur bi fa sàkk ñu tëj ko kaso léegi attekat bi kay moo ci des libération ne Sitor Ndour kay yëfe fa garaaw gis nga audio enregistrement bi mu doon waxee téléphone mook yaay xale bu jigéen ba lam wax gaa yi déglu nañ ko ah, yaw seetal yaay xale bu jigéen fu ko wax na ko sama doom ji ne neen yaa ko violé def ko lii def ko laa mu ne ko faalay ñaan gis nga coow lii bu mu jëm kaw ndax su boobaa man kilifa laa sama àdduna fay yàqu sama der yàqu léegi faa bëgg nga bàyyi noonu ci suuf bu ko wax kenn su ko defee lépp loo bëgg danaa la ko defal ñaay def leneen lu baaxul te mooy màkkaro ay courtier yoo xam ne xale bu jigéen bu rafet boo soxla Dakar ca ñoom ngay jaar jox leen xaalis bu bëri ñu fexe ba la ko sa néeg wala ca hôtel ba l'observateur kenn ci ñoom nee na benn politicien bu am alal fa maa ma andil ko xale bu jigéen bu siiw bu nekk ci théâtre yi yi ba ko ko andilee terrain la ma may suuf suuf ay mais tooxiidoona ya bunt ba ubbeeku na benn soxna daal moo jël pétrole bàyyi ba jëkkëram di nelaw mu sotti ko ko rek kos almet taxal ko jëkkër ja takk jëppét lakk ba mujj faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca diwaanu tëngéej turbine yéene kaay ñi ko xamal nee nañ fa njort ne jëkkër ji fa xam coro beneen xale bu jigéen bu mu bëgganteek ndaw sa nag tur wa aala tàmbale jóob la sant takk dere teg nañ ko loxo hmm, waa ma ne léegi faay laajte yow sa jëkkër amul droit gis xale bu jigéen bëgg ko takk ko jabar comme la takkee ah sa jëkkër na am fukki gel ak juróom-ñaar lu ci sa yoon su fekkee fay takk l'islam may na ko su fekkee fay caaxaan boppam la koy def lenn lu du fiir de ak ndof woyadi xoolal fooy mujj léegi ñàkk nga sa jëkkër ja da nga bëggati jëkkër mu tëla ba pare ñu tëj la kaso su ko defee nag xay xenu la li ci euh, yéenekaay yi euh, Shukran El Hadji euh, Oumar Ponk boobee sax nag mooy jeexal xibaar yi jaajëfal nañu leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci ko du sekk kenn mee ci xarale gi Mouhamadou Khalili ci partie digitale bi waaye du ñu fàtte waa rédaction ak waa production ci jàppandalum xibaar yi ñaanal nañu leen mucc ak muccule jàmmi biir ak biti tawfiix ak taysir jàngeen jëfati. Le journal Ngoné